benn délégation mouvement Y'en bu ñëwoon tey nemmeeku si monsieur Ousmane Sonko ginnaaw démb ci suba bi ñu gisee mbir yi tàmbali gannaaw bi ñu defee déclaration démb pour artu nguur gi pour que ci mbir mii nga xamante ni moom moo jóg ñu bañ a jël suñuy institution bañ a jël suñu justice ak suñuy force de l'ordre utiliser leen pour casser opposition utiliser leen pour casser toute voix discordante bi nga xamante ni àndul ak li nga xamante ni nguur gi moom lay défendre démb artu nañ ci ñu artu procureur procureur de la République aussi pour le respect en fait strict des droits de monsieur Ousmane Sonko qui est d'abord un citoyen sénégalais waaye aussi euh, député du peuple la bi ñu observé journée bi et ñu gis li fi xew démb gis ay takk yi nga xamante ni sous prétexte que dañu ñëw pour disperser ay foule répression inouïe bi fi am bi ñu observer loolu ci la ñu comprendre ni au-delà de cette affaire am na li nga xamante ni nguur gi dafa am ci ay ci état d'esprit bi nga xamante ni euh, ci loolu la nekk te loolu buñ ko dogaaleluwul rek fi mu jëm du baax état d'esprit gis ngeen démb c'est pour réprimer état d'esprit déjà de manque de sérénité wu nguur gi ci li nga xamante ni moom la ñu doxal démb ils ont donné le temps et que bépp citoyen sénégalais que ngay mouvement citoyen wala ngay parti politique wala ngay juste citoyen sénégalais boo seetaanee loolu di nga xam nguur gi fi mu jëm ils veulent décourager toute velléité contestataire fexe ba comme ni niñ ko defee woon ak euh, Karim wadd gis nañ ko fi gis nañu niñ fi def ak euh, Khalifa Sall fexe ba utiliser force publique bi pour réprimer casser opposition fexe ba ñu nekk ci benn démocratie bi nga xamante ni daanaka du am opposition loolu nag moom la ñu constaté face à ce constat nag ñaari mbir la soit dañuy seetaan observer en observateur soit nag ñu gis ni au-delà de Ousmane Sonko il s'agit de la démocratie sénégalaise bi nga xamante ni fépp ci Afrique ñu ngi koy bakko waaye tey jii nii boo ñëwee nga gis kii di leader de l'opposition sénégalaise mu nekk presque en situation de résidence surveillée même ñu nekk ci koñ bi mënuñu dem ak dikk comme ñu ko bëggee ci biir koñ bi yéen presse bi mënu leen accéder ci këram pour def seen liggéey ñun gis ngeen bi ñu ñëwee pour dugg si ni mu demee avec les policiers à la limite ils ont voulu nous ci ci wax ju ñagas wax ju metti bugg intimider nit ñi pour que ñu bañ fa accéder ci suñu insistance moo tax ñu mën a accéder kër Sonko. loolu nag ça n'honore pas le Sénégal sa nonor pas notre démocratie képp ki nga xamante ni da nga jàpp ni cette façon de nous gouverner bi nga xamante ni lu mel ni mouvement Y a marre depuis dix ans on se bat pour les mêmes causes bu nee dañu jàpp ni rek loolu dafa war a jeex je pense que c'est le moment de se dresser encore une fois au-delà de Sonko mais il s'agit de notre démocratie et que képp ki nga xamante ni démocratie wu Sénégal jaral na la nga xeex boobu ba tey yaa ngi ci c'est vraiment le moment de se dresser pour que Euh, jalon yi Macky Sall nekk di posé ñun ñëpp ñu gis fi mu jëm ah. mu bañ a jàll waay. ñun ñëpp ñu gis fi mu jëm euh, mu bañ a jàll. et su boobaa il faudra que ñu ñu organiser wu ñu mobiliser wu. c'est bon. non euh, Ousmane Sonko est tres serein dugg nañu gis nañoo gisee nañoo moom. pendant une heure de temps discuter nañu. Euh, mu ngi dal mu ngi ànd ak sérénité et euh, dal boobu ak sérénité boobu la ñuy conseiller à tous les sénégalais yi nga xamante ni jàpp nañu ni euh, war nañu jóg ñu taxaw pour que ñu bañ a salfaañe suñu démocratie ak suñu état de droit. li may wax man moom message s'adresse à Macky Sall c'est-à-dire bu mu créer les conditions de brûler ce pays voilà li fi am démb bu continuer il va brûler ce pays et il sera le seul responsable de tout ce qui se passera ñun dañu toog di observer di seetaan mouvement citoyen la ñu mais bu ñu fexee ba bu ñu jógee ba takk suñuy dàll ñu ñëw tey parce que xam nañ ni nguur gi état d'esprit bi mu nekk ils veulent semer le chaos dans ce pays ils veulent étouffer l'opposition ils veulent faire en sorte que réew mi mu doon benn démocratie bi nga xamante ni du benn opposition c'est à Macky Sall qu'il faut s'adresser pas à ces jeunes là jërëjëf merci